dañoo tok ay wér wér wér manam lu weesu at di xeex di lijeenti di négocier waaye tay yalla dimbal nañu ñu am partenaire bu bu melni Sonatel nga xamné réseau mo gën ci réseau yam Sénégal ñuy démarré ak li ñuy wax 4G plus nga xamné opérateur yi nga fi am mën na leen di compter opérateur yi nga xamné sen réseau couvrir na Sénégal mën na leen di compter mën nañ wax né ñun ñoy deuxième opérateur bi am réseau 4 plus avec notre partenaire Sonatel Tay, ñi ngi am sant ñi ngi sant xalif général des mourides di sant sénégalais yëpp ci ndimbal gi ñu dimbali accompagner ñu durant tous ces moments de difficulté ba tey ñu ñëw am chance su démarrer li nga xam ne mooy piisu sénégalais yi di Promobile ñu ngi ñëw nag di di leen indil ay produits pour xale yi mu tudd Promini di ñëw di indi produit pour mag ñi mu tudd Promix nga xam day am internet am voix am SMS Promini bi aussi day am internet am voix SMS ñu ñëw ci li ñuy wax naan pro net day am pro am pro am pro li ci gën a xoromu mooy pro bi cinquante franc sax boo amee connecté wu cinquante franc ngay am mooy fukki dërëm am ci trente émo mën a connecté wu dugg whatsapp dugg fu la neex fecc say soxla ci ci internet bi li ñu bëgg daal mooy loo am woote loo am connecté wu promobile weesu na plus boo amee crédit yaa ko moom la soo amee paquet yaa xool paquet bu la neex nga jël ko en fonction yow li nga bëgg def

je pense que le directeur exécutif l'a dit tout à l'heure wax na né promo bi ëpp na puce lañ wax Lool nak li ci jublu moy dafa nek un écosystème de service dafa doon service yu yaatu yo xamné dañ ko dañ ko bolé. Ci service ñaari bokoy xol day tambalé ci woté. Tambalé ci connecté wu waaye la question qu'il faut poser moy bo connecté woo ba paré loy xol. Euh ndax connexion bi mom la wax access Bo amé access ba nopi, mi ngi melni yeen ñi nek ci média bi so amé say antenne ba monter sa télévision ba noppi léegi lan moo ci des ku ne xam na ne mooy programme mooy yéen li ngeen di def création de contenu boobu donc promo bi bi mu ñëwee chaîne de valeur boobu yëpp la bëgg a satisfaire mooy li ko tàmbalee ci bi ngay connecté wu boo connecté wu ba pare loo cee def connecté wu ba tamit yëmut ci rek connecté fekk fa dara boo fa fekkee dara ndax ku ne xam na ne léegi internet bi soo duggee da nga fa fekk lu bëree bëri mais dañuy fexe ba communauté bu nekk li gën a yelloog moom ci li mu bëgg loolu bu connecté wo defee day day a am accès ci loolu donc je pense que loolu vision la bu bees tax boo xam ne euh, musu fay am ci vision bobu day yokku da koy tambalé ci les les da koy tambalé ci les services traditionnels de télécom mais nak continuer ci kaw ba ci lepp lo xamanteni di service télécom bi parce que service télécom limi jarign rek moy euh access la daf lay permettre nga am dara waaye soko amé ba paré lang cey def dañuy fexé ba am impact ci communauté bi impact ci nit nit ci njariñam ci walu jokkaloom ak ci walu gëstoom ak ci walu leppam kon defe naa ne euh, loolu mooy lancement bi def nañ ko euh, au point de vue opérationnel tout est ok euh, ñom ñi fan yi yëpp ñi ngi won ci tester ak xol ak défar lepp baax na tout est ok euh ko tambalé ci acquisition pièce bi provisioning ba ci jënd airtime jënd sa crédit mëna woté lepp baax na dara desul bu soobee yàlla ëllëg lañuy ñuy tàmbali njaay mi je pense que monsieur Goudiaby l'a dit tout à l'heure euh, ëllëg ku ñëw loo teel a teel a xëy boo ñëwee da nga mën a am sa pièce di nga mën a jënd sa crédit di nga mën a da nga mën a connecté wu da nga mën a tàmbali. léegi wax na ko nee na réseau bi ñu àndal mooy réseau bi gën a yaatu mi ngi partout Sénégal réseau 4G la tamit 4G plus mais yemuñu foofu donc 4G boobu tamit boo ci duggee day am loo fay fekk léegi wax na ko date de validité offre bañ nañ ko ba ni ñu ko tuddee mooy xéewal gu. sax dàkk sa du dog dog gi mooy xéewal mën naa sax dàkk waaye mën naa dog dog gi mooy ñu jox la kër ñu jox la sa offre ba noppi ne la date sàngam lay valider wala fii lay yem. boo xoolee opérateur yu bari dañuy tàmbalee dañuy doon opérateur télécom traditionnellement parlant après ñu yokk mobile payment mais Swiss Telecom ku xam histoire am xam ne mi ngi woon ci les systèmes de paiement électronique avant lii di am. donc bu lii amee mën ngeen a xaar fii ak euh, lu yàggul dara nga xam ne sans pour autant préciser ban date lay doon. ngeen gis euh, les paiements digitaux mooy nga yor sa kalpe man cee fay waaye du ñu am rek ci lii ngeen def du ñu ci yónnee ak jot xaalis parce que boo xoolee nit ki bu yónnee xaalis soo ko retiré ba noppi nit ki da nga koy yónnee xaalis mu retiré ko doxaat dem dem jëndaat dara donc dañ dafa mel ne coup la deux fois buñ ko yónnee day fay ba pare retiré ko ba pare dem dox dem dox jënd buy dox dana ko coûter dara léegi nag ñun gis nga last mile boobu ñuy wax mooy le dernier mile boobu la ñuy jéem a xool

fof foofu laay waxee la semaille ay ay ay ay xalaat yu xereñ ñi ngi ci pour la bobu jeex nga porte nga chargé sa porte-monnaie sans pour autant déplacer lool nak mom euh monsieur Goudiaby et son équipe de l'ingénieur et de business développement dañ koy laq nuñ koy défé da ngeen di jek jek rek gis ko inshallah allah. ñun tout est ñun on met le focus sur la proposition de valeur le end user le client final moy nit ki ñun li ñuy jël jox ko. loolu nag du nekk lu ñuy wax ni waaye suba su nit ñi tàmbalee dañu gis impact bi wax naa la léegi ne li ñu bëgg mooy impact palpable physique mathématique ki la mooy nit ki day ñëw joxe dugal pisam woote xam ne lii njariñ la foofu la ñu bàyyi ñu attee ñu xam nga nit ki boo ko proposé loo xam ne dafa am ci moom njariñ mu gis na njariñ a ngi ce qu'on appelle value proposition loolu boo ko joxee client bi dana tax moom mu mën a nat ndax lii li muy fay ci xaalis njariñ li mu koy jox jar ko wala déet je que loolu yàggatul euh, saaga yàkkamtee xeex la dóor yàkkamtee xeex la euh, yaa ngi fi subaa ngi fi sénégalais yaa ngi fi subaa ngi fi ba suba ci 8 heures incha allah